dëkk bu bees waaye itam lan mooy mbébét yi ak xëy na ay gàllankoor bu dee am na ci ñu dalal ci nag ku ci mën a wax ndax nekkoon na fi jamono kuy xelal président Macky Sall ci wàllu dëkkuwaay wàllu urbanisme ak aménagement di euh, mamadu Kassé directeur général SICAP esa di itam urbaniste aménagiste ñu ngi lay euh, nuyu am mbégte dalal la ci waxtaan wi démb ak tey ngir waxtaanee lii ma fi junj léegi. Euh, ñi ngi sant soxna Fatou di nuyu également auditeurs yi nga xamante Euh, di rafetlu également seen euh, teewlu ci émission bi nga xamante ne euh, dañu bëgg a wax wàllu boo xamante ne wàllu xarala la donc effectivement ñuy d'abord rafetlu inauguration bi nga xamante ne moo consacré jëf juré jooju nga xamante ne président Macky Sall jëf na ko muy stade olympique maître Abdoulaye Wade euh, bi nga xamante ne euh, effectivement inauguré nañ ko talaata bi ñu génn euh, te ma koy rafetlu di ci aussi féliciter le DG de la SOGIP ba parce que man it nag ba SOGIP amee ba tey. Mm. membre laa ci conseil d'administration bi. donc loolu tamit dafay nekk une fierté supplémentaire. Mm. pour man ci wàll boobu waaye nag mën nañ jàpp rek ne. Euh, benn tomb la euh, bu daanu ci projet bu gën a mag muy jam ñaajo parce que foofu nag laata euh, stade bi di fa ñëw lu bëri teg nañ ko fa te am naa yaakaar ne tey juróom-ñetti at bi ñu ko weesoo ci li nga xamante ne moo doon mébétu président ak xeer yu njëkk yi nga xamante ne teg na ko ci biir jam ñaajo te coow li bëri woon ci trop gis nañ ne que mbir mi mi ngi commencé jël tuuti jëm. Hmm. te nag euh, loolu la euh, ndar xëyul sotti. Hmm. te ndar kenn tabax ko ci benn bis. Hmm. te tamit lu toll ne dëkk bu fekkee ne danga nga kaa bëgg a sànc. boo ko bëggee sànc euh, mu nekk loo xamante ne dafa mucc ayib faaw aussi mu jël temps. te gis nañ ne que nag depuis juróom-ñetti at. gis nañ évolution bi nga xamante ne. moom la jëm ñaaju jël ak infrastructure yu ko wër. faw mu jël temps mais certainement am na liggéey bu ko jiitu liggéeyu gëstu liggéeyu peut-être xalaat ak xoolaat gox bi euh, lu waral déjà président tànn jëm ñaajo pour def ko dëkk bu bees bu muy sanc noo xam nga jam ñaajo ci suñu configuration wu dëkk euh, mën naa ne euh, nature bi moo ko jox placement bu baax. ndax euh, boo xoolee laata président euh, di ñëw jamonoy Senghor daan nga dégg ñuy wax croisement jam ñaajo hmm. xam nga bu ñu nee croisement jam ñaajo dafa nekk loo xamante ne zone de distribution la muy zone boo xamante ne ci croisement boobu fa ngay jóge jëm cees ñenn ñu jóge fa jëm Mbour donc jaar Tamba. donc c'est selebe yoon la woon selebe yoon bu mag la woon donc loolu loolu placement naturel la. te boo ko xoolee baax a baax bi président Ablaye Wade ñëwee aussi amoon na projet boo xamante ne concerné woon na Diamniadio muy plateforme de jam Diamniadio euh, te inclure woon zone yi nekkoon yëpp yeen dugaar euh, ak zone yi nekkoon foofu yëpp amoon nañ seen plan d'aménagement spécial bu nga xamante ne ci cadre plateforme de ñaajo la woon bon antuwul aussi ni mu ko bëggee woon mm-hmm. président Macky Sall bi mu ñëwee moom euh, dafa dem ci ndax ingénieur la nag te ingénieurs yi généralement dafa am seen seen lépp ci calcul lañ koy teg hmm. ak ci pragmatisme maanaam loo xamante ne loo dajul ci sa loxo ah. euh, du mën a euh, fees xel hmm. alors euh, moom dañu calculer bu ñu calculer ci mathématique hmm. dafa am loo xamante ne rayon la bu mu doon liggéey moom liggéeyul woon rek ci jam ñaar bu doon liggéey ci plan d'aménagement bu benn triangle bu ñuy wax dakaar Mbour Thiès dakaar dafa fat dafa dem ba nga xamante ne dafa fart Thiès commencé daanaka di fees. te defoon nañ fa les grands chantiers ubbi côté autoroute bi lotissé ko mu bees. Mbour nekk une grande agglomération donc léegi naa question bi moo doon triangle boobu ñetti point yooyu leen dajale naka la ñu war a def ba ñu génn ci question bi donc du woon Dakar kese. du woon Mbour kese. Mm. du woon euh, Thiès kese mais ensemble bi la woon. mais ensemble boobu noonu boo ko tëggee en géométrie triangle la lay jox. maanaam figure boo xamante ne euh, ñetti ñetti ñetti point la am euh, ak ñetti trait. léegi la nga xamante ne moo leen féetee digg doom mooy jam ñaajo. maanaam du mën nga ne jam euh, ñaajo mooy isobaricentre. bu triangle boobu nga xamante ne mooy dakaar Mbour Thiès. konte nag looy def mu war a am solo. foofa la nga ko war a defee donc loolu déjà c'est loolu déjà en fait aspect scientifique bi la. léegi ay gëstu ñoo ko wane. waaw ay gëstu ko wane euh, ak nature bi ma la wax. léegi mën maintenant après nga def l'état des lieux des infrastructures de base maanaam bi fii Ablaye Wade di jóge autoroute la fi bàyyi boo xamante ne daanaka jëm ñaajo layam yeggul woon sax ba croisement raay ba maanaam passage à niveau bi jàllagu ko woon kon boo ko seetloo 2012 bi président di ñëw. Euh, autoroute bi <laughs> daawul jàll sax passage à niveau bi. ci raay bi la doon yàq ci raay bi la da nga daan ñëw ba rond point boobu nga xamante ne moo jëm ci sphère ministérielle yi nga jàddaat dem rejoindre Diamniadio defaat encore un kilomètre avant nga yegg croisement Diamniadio nga jëlaat Mbour noonu la fa demee. moom moo yeggale tronçon bi nga xamante ne moo jëm ba Mbour jóge Mbour jamono ji war a jëm ba Kaolack. Euh, donc boo defee état des lieux de infrastructure yi nga xamante ne ñoo fa nekkoon. Mm-hmm. Université du futur africain. Mm-hmm. bokkoon na ci li nga xamante ne ci zone boobu la nekkoon amoon na la zone industrielle. Mm. en gestation. mi ngi woon ci zone boobu noonu. amoon na euh, aussi l'hôpital. d'accord bu Diamniadio donc boo ci boolee infrastructure autoroutière bi plus projet aéroport bi déjà zone boobu. am na d'abord base. Mm-hmm. donc loolu moo doon les travaux de base. léegi maintenant. président li mu bëggoon moom mooy nañu nañ ko dagg ñeenti arrondissement def ko un grand projet boo xamante ne dafay concerner Diamniadio ak Lac parce que bi ñu créé la délégation générale c'est la délégation général de promotion euh, des des du pôle ur de Diamniadio et du Lac Rose c'est-à-dire que donc première phase bi Diamniadio la deuxième phase bi Lac alors donc déjà c'est une valorisation de l'existant waxoon naa léegi li ci nekk léegi après ñu def découpage boo xamante ne dana am li ñuy wax cohérence administrative ak cohérence territoriale mooy ñu dagg ko en quatre cadrans mu nekk quatre arrondissement parce que arrondissement dafa am lu mu représenté ci suñu biir structure administrative donc mu nekk quatre arrondissement quatre arrondissement yooyu ñu xalaat ci ne am na problème yoo xamante ne dañ ko war a réglé mooy décongestionnement wu dakaar ñu ñu war a ko jaar d'abord ci nu ñuy rationaliser wala nu ñuy optimiser euh, bâtiment administratif yi mooy maanaam le service public en tant que tel gis nga ne foofu ñaari sphère ministérielle moo fa am mais laata sphère ministérielle bi d'abord acte bi président njëkk a posé moo doon le centre international de conférence Abdou Diouf muy parce que dafa dafa dafa coïncider woon ak aussi sommet Euh, francophone boo xamante ne Sénégal moo ko doon organisé. Mm-hmm. donc ñu amoon option pour partir de l' wala euh, créer def création nouvelle. Mm-hmm. donc création nouvelle bi moom la ñu opté te gis nañ ne que am nañu tey euh, l'un des centres les plus performants de l' de l'Ouest à ce niveau là. bi ñu paree ñu couplé ko avec un hôtel d' affaires. en même temps en même temps ñu am ay promoteurs yoo xamante ne dañu engagé le volet construction. Euh, promoteur yu mel ni secteur privé yu mel ay secteur privé voilà bëgguma leen dangay dangay da ngay daw publicité bi ah. <laughs> donc secteur privé bi daal vraiment ñu engagé wu ci pour tabax ay logement mm-hmm. donc état yor wàllu infrastructure yi euh, maanaam la boucle du germe de ville mm-hmm. mooy boucle boobu nga xamante ne moom moo war a traverser la ville mm-hmm. euh, en deux fois deux voies ensuite assainissement bi ñu dénk ko DGPU Euh, ensuite euh, euh, axe bi nga xamante ne mooy axe 80 bi nga xamante ne moom moo war a jàll aussi traversé mm. kii bi dagg cadran yi xaajale arrondissement yi ñaar yooyu yëpp DGPU yor ko waaye ñu créer aussi société de gestion des infrastructures publiques maanaam infrastructure yi nga xamante ne moom la ñuy tabax mu bees moom société boo xamante ne moo koy superviser. di ko toppatoo di ko toppatoo muy SOGIP. Euh, ci la ñu indi le euh, euh, le centre des exposi des expositions. le centre d'exposition internationale bi indi Dakar Arena def le marché d'intérêt national euh, plus maintenant aujourd'hui Esat bi nga xamante ne moom la ñu tabax te ñoom ñoo tabax aussi hôtel d'affaires waaw kon nag lépp ñu def ko ci mode bu nga xamante ne ci la ko président lancé woon muy mode fast track. Hmm. Euh, des ouvrages yoo xamante ne troisième génération la ñu koy tabax ci ay délais yoo xamante ne yu mucc ayib yu gaaw euh, pour permettre développer euh, li nga xamante ne nii moom mooy l'activité dans cette zone entre temps gis nga ne sphère Ousmane Tanor Dieng ministère yi tuxu nañ fa gis nga ne beneen sphère bi boobu tamit ministère yi tuxu nañ fa donc tey jii nii mu am en plus une grande infrastructure de grande envergure muy le train express régional bi war a yegg ba Diass. ñëw na tey ba Diamniadio donc vraiment en huit ans. boo xoolee la somme des choses yi nga xamante ne def nañu ko boo ci boolee maintenant le parc euh, industriel bi fa nekk euh, le data center bi nga xamante ne moom la fi ADE yor. IRESSEF euh, am seen institut mi ngi foofu toog. Euh, ak yeneen ak yeneen am na ay daara moderne am na lu bëri loo xamante ne tey jii nii teg nañ ko ci biir Diamniadio te mi ngi dem. donc loolu aussi ce sont les déterminants et les adjuvants maanaam li nga xamante ne mooy constituer lii xorom cin li euh, ci booy liggéey lu toll noonu d'accord ba tey euh, ñu wéy ci jam ñaajo liggéey yooyu euh, itam ndax mun nañu xam njëkk li ak li ci aju parce que tamit askan wi souvent dañuy yëkkati yooyu les interrogations est-ce que am na transparence et tout ce qui va avec waaw ouais, mais normalement am na transparence kay parce que amul lenn loo xamante ne liggéey nañ ko jam ñaajo te duggul ci wàllu procédure boo xamante ne dafa appartenir ci lii nga xamante ne moom mooy régir euh, les règles euh, yi nga xamante ne ay passation la wala en tout cas ci règles yi régir l'administration ou la république ci wàllu boobu partenaria public privé mooy li ñu gën a utiliser parce que dafa am ay ay grandes infrastructures yoo xamante ne ci grands travaux la ñu dugg grands travaux boo koy dugg dafa am noo koy doxalee te loolu état mooy engagé wu souvent par le biais des grandes agences comme l'APIX euh, pour monter ay PPP maanaam ay partenariat public privé parce que li ñuy lever ci fonds dafa bëri te infrastructure bi nga xamante ne moom la dafa rëy te <coughs> envergure am tamit ak maanaam dayoom ak ni mu toll day tax du doon ay appel d'offre yéen maanaam normalement foofu ay ay partenariat public privé lañ koy defee souvent état bi dafay même euh, engagé sa propre souveraineté ci wàllu garantie. pour mën a lever fonds yi nga xamante ne mooy permettre loolu am. waaye tey jii nii dañu toll foo xamante ne Stade Demba Diop ak Marius Ndiaye mënatul supporter li nga xamante ne mooy dayo bi suñu basket am par exemple. Mm. ñun on a été je pense boo confond boo jëlee jigéen ñi ak góor ñi confondu est-ce que nekkuñu onze fois champion d'Afrique euh, loolu quand même palmarès la. Mm-hmm. loolu war na tax war na tekki ne. ñun tey li gën a baax ci li ñuy def ci Afrique ci wàllu sport infrastructure boobu noonu dañ ko war a am loolu mooy expliquer que euh, Dakar Arena ñëw parce que au-delà du basket y a aussi arts martiaux yi ak tout euh, sport yi nga xamante ne sportu intérieur la yëpp bal volley dañuy am seen infrastructure bopp euh, tey yaakaar naa aussi football gis ngeen li mu wone ñu ñëw ba jël Coupe d'Afrique bi te ñu ngi ko doon wër depuis bi nga xamante ne suñu indépendance am na te coupe d'Afrique am. Euh, ñu am ko tey xëy na loolu c'est le processus la. ci ni ñu organiser club yi. ni ñu defaree ba nga xamante ne tey jii nii formation bi am na solo. gis nga am na centre yu bëri yu feeñ ay jàmbaar. ay génération foot. ñoo ñëpp football bi gën a organisé infrastructure yi tey boo demee ci région bi gën a sori. am na infrastructure boo xamante ne dana permettre nit ñi di football dans les normes dans les règles. war na kon tey aujourd'hui stade bi ñu am bu dayoo bu toll noonu euh, footballu Sénégal mérité na ko ndax tey gis nañ ne que dépassé nañu quasiment li nga xamante ne moom la ñu yor ndonte euh, Demba Diop baax na ndonte Iba Mar Diop baax na ndonte. Euh, Léopold Senghor Léopold Senghor baax na Alassane Djigo baax na mais lii di stade Maître Abdoulaye Wade dañu ko waroon am. Mm. parce que dafa bokk ci li war a mandargaal ak xarala. Mm-hmm. ñun ni suñu dayoo wu équipe nationale toll. Mm. tey maanaam xale yi fubal ci équipe nationale bi. ñoom ci pelouse yu toll nii la fubale ci stade yu toll nii la ñuy fubale ci infrastructure yu mel nii la ñuy évoluer mm. donc warul doon guléet ci seen dëkk ñu war a mën a retrouver surtout que ñoom li ñu leen sant ñu ngi koy def mm-hmm. waaw euh, konte nag euh, loolu jàpp naa ne euh, boo bëggee pour xam pour les règles DGPU loolu mooy mm. liggéeyam mooy lépp lu nga xamante ne wàllu infrastructure la route assenisement mm. mu organiser les appels d'offres pour ça lépp li nga xamante ne wàllu attribution wu teer yi la ñu jaarle ko ci yoon pour que ñi war a jot suuf ñu jot ci mais aussi mm. état li mu war a def moom aussi mu def ko ci cadre yi nga xamante ne euh, noonu la ko war a defee ci wàllu yoon mm. ak lii suñu euh, réew dogal Euh, ci pàcc yooyu. Mhm. alors euh, transparence bi parenthèse la woon parce que lu intéressé sénégalais yi la mais fi ma bëggoon ñëw mooy en huit ans infrastructure yi ñu fa def bëri na wax nga ko mais c'est beaucoup de milliards ñu bëri tamit dañuy wax ne loolu nekkul woon priorité parce que euh, abri provisoire yi ñu ngi fi si njàng mi éducation bi mi ngi sooxee naka nga mun a gëmloowee sénégalais yi ne que jam ñaajo ak li ñu fa def si xaalis en huit ans lu ko jaroon la par rapport ak yeneen problème yi nga xam ne aussi ay urgence la te ñu ngi xaar. waaw amee xam nga régler urgence warul tax ñu fàtte avenir lu nekk aussi euh, dans la planification ah, d'une ville bu fekkoon ne nit ñi ñu fi jiitu seen urgence rek lañ gérer ñun tey duñu fi duñu fi bàyyi dara ci avenir hmm. lu ñu war a mën a téye xëy na ba ñuy construire stade Léopold Sédar Senghor hmm. Sénégal soxla woon na ay salle de classe waaye tey euh, lii safur la maanaam stade aéroport Léopold Sédar Senghor laa bëgg a wax hmm. booba Sénégal soxla woon na ay salle de classe soxla woon na leneen donc du calcul yooyu nga koy defee euh, alors euh, te pourtant tey aéroport bi bu bees bi bi ñu koy def également di ko engagé munoon nañ ne euh, loolu tamit mën na dugg ci abri provisoire yi parce que c'est peut-être deux trois ou quatre ou cinq fois la valeur des abris provisoires mais tey xam nañ ne que jas vision la importance la te impact la également gis nga analyse boobu soo ko defee ci aéroport bi moom nga war a def pour terre bi moom nga war a def pour autoroute bi moom nga war a def pour route yi moom nga war a def pour lépp euh, naturellement nag ça ne veut pas dire que kenn warul jël lu takku def ko ci biir abri provisoire yi li ñu def ci PUDC tabaxoon na aussi abri abri provisoire yi waaye est-ce que euh, c'était à ce moment-là est-ce que da waroon bàyyi piste de production yi nga xamante ne moom nga doon defar euh, matériel d'allègement yi nga doon joxe électrification rurale de nouveaux villages yi nga doon def ak adduction d'eau yu bees yi nga doon def pour justement def ko ci abri provisoire yi donc loolu pour man yenn saa yi waxu populisme la wala wala comparaison boo xamante ne elle est malsaine euh, plutôt que comparaison bu raisonnable waaw parce que bu fekkee ne dëkk nga boo xamante ne. ah mais loolu dëgg la nag euh, bu fekkente nii am nga problème si wàllu faj wàllu jàng loolu tamit est-ce que mën nañ ko jàppee populisme rek. c'est ah, yoo xam ne la tam lu ñu war a wax la. xam xam nga xam nga lu nekk tey. Hmm. je veux dire dama ne la su fekkee ne on pousse le bouchon. ça veut dire que tey jii nii kon xëy na amatuñu sax raison ñuy am palais présidentiel. nañu toj palais présidentiel. ñu jël yëpp def ko ci urgence ah pourquoi pas def ko ci urgence yi wala ci hôpital ba pare président Macky toog këram. wala effectivement aussi building administratif xëy na tamit amul njëriñ euh, parce abri provisoire bi ko gën a important donc nañ ko toj dugal xam nga yooyu wax yooyu pour man comparaison yooyu. man loolu laa trouvé que c'est un peu populiste. waaw parce ko defoon ci abri provisoire moo gën loolu yow loolu nga gis. mais tamit sport bi dafa am lu muy indi ci économie réew mi. Euh, il faut pas que ñu minimiser impact boobu noonu euh, xale yi nga xamante ne tey jii nii ñoom ñooy les professionnels di football. tey am na lu ñuy indi ci biir dëkk bi. loo xamante ne ci seen doole yi bopp la ci seen xaalisu bopp la ci seen liggéeyu bopp la ci seen ñàkku bopp la. Euh, te fële lañ koy defee tey Sadio Mané tabaxul benn lycée. ak hôpital. tabaxul benn tabaxul benn hôpital ci lu mu ko defee. waaw mu ngi noonu donc loolu loolu est-ce est-ce que moom voilà voilà les questions qu'il faut réellement se poser. Mm-hmm. Euh, te pourtant moom du la ne stade bi important wul pour moom parce que moom mm-hmm. instrument de travaayam la. Mm-hmm. donc bu nañu am ay Sadio Mané yu ëpp nañu am ay loolu tamit ci la bokk ci liggéey bi la bokk. alors ñu wéy ba tey ci jam ñaajo euh, yow euh, li waral ñu tànn la ngir waxtaanee li wax naa ko ci ndorteel yi bokk nga ci ñi doon xelal président Macky Sall conseil technique ci wàllu habitat wàllu urbanisme aménagis euh, aménagement alors tey jam ñaajo conditions yi est-ce que daje na pour mu nekk dëkkuwaay bu mucc ayib selon yow sa spécialité justement non xam nga wax loolu mooy xëy na mën na am na loo xam ne mën na prématuré waaye bu ñu ko démarré wul woon juróom-ñetti at ci ginnaaw duñ ci toll fi ñu ci toll nii. waaye jamono bi ñu toll nii ku xool jam ñaajo xam ne mu ngi évolué et bu ñu ci yokkee juróom-ñetti at leneen lay doon. lu dul li mu doon nii. waaw parce que nag dafa nekk processus dafa nekk ci yoon ci yoon boo xamante ne ñu ngi koy tabax. waaye boo gisee ne que nit ñi tey ña fa daan xëy di liggéey autoroute bi lañ daan jël. dem liggéey sphère ministérielle Ousmane Tanor Dieng ak sphère ministérielle de Diamniadio. Mm-hmm. ñooñu tey am na ci ñoo xamante ne gare Dakar la ñuy jëlee seen terre ñëw kon am na lu yokk chaque jour mu am lu bees loo xamante ne. dana gën a dundal foofu. xëy na peut-être bu ñu mettre en service en certain nombre de logements nit ñi di fa yeewoo. xëy na bis bu fa commissariat de police amee wala gendarmerie am fa. wala ay école am fa wala leen am fa loolu yëpp day yokk toujours ci dund gi te loolu noonu nag la mbir mi di takkee ba doon loo xamante ne lu mucc ayib lay doon. ci wàllu suuf si itam dañuy dégg ne ban la suuf si baaxul adekaawul pour tabax ak yu ni mel loolu loo siy tontu en tant que ku xelam màcc ci wàllu woowu. non xam nga suuf boo gis rek am na niveau mu am ci jafe hmm. euh, tey am na suuf yoo xamante ne boo wàqee tuuti mën nga faa def sa fondation. waaw parce que xëy na joor la walla jéeri la bon enfin voilà donc lu ci ne rek am na noo xamante ne. noonu nga ko mën a qualifier xëy na complexité bi du bëri mais fële dafa nekk benn sol boo xamante ne dañ ne c'est un sol marno argileux c'est-à-dire ça dire que dafa am xeetu ban ak euh, rataxiit yoo xamante ne moo rax ci suuf si ba tax na balaa ngay am suuf su baax si nga xamante ne ci ngay tabax da ngay gas lu bëri. mooy jam ñaajo. waa mooy jam ñaajo mais terewul am na procédé yi ñu fay liggéeyee. par exemple tey fondation Micropieux mooy li nga xamante ne moom la ñu gën a privilégié pour liggéey ci style euh, sol bu mel noonu. mais nit dana tabax ba tabax ci biir ndox. pont Foundiougne lu ko téye ci kaw ndox mi lay aw pont Sénégal bi lan moo ko téye fondation yi ci biir ndox mi lañ ko defee. donc foofu tamit beneen complexité la donc beneen procédé lañ koy liggéeyee. moo taxoon modèle économique bi nga xamante ne moom le président proposé woon. parce que dañ naan ah jam ñaajo pour construire une maison pour nga tabax kër il faut nga enterrer kër maanaam da ngay enterrer njëgu kër pour am kër. <laughs> xam nga loolu lu muy tekki. li muy tekki mooy bu fekkee ne da ngay def kër yoo xamante ne sorewul ci yéeg maanaam benn étage la kaayewul. Hmm. booba vraiment foog sa loxo jot sa ginnaaw pour nga mën ko. xam nga loolu kon dafay nekk foo loo zone boo xamante ne pour tabax fa mën na nekk zone résidentielle. Hmm. mais nangu nañ ko aussi ci aménagement. nekk am na zone yoo xamante ne ñi gën a jot seen loxo gën a jot seen ginnaaw. ñoo fa war a mën a dëkk am na ci àdduna bi yëpp. ndax tabax bi mooy metti waaw tabax bay metti mais terewul aussi ñu mën a def euh, mixité sociale bu mën a permettre ñi nga xamante ne seen loxo jot na seen ginnaaw ñu mën aussi di ànd ak ñi seen loxo jot na seen ginnaaw ñuy dëkkandoo parce que loolu aussi jaxasoo boobu mooy Sénégal. moo tax modèle économique bi maanaam plus ngay yéeg plus ngay rentabiliser li nga def ci suuf. Mm. moo tax jam ñaajo dëkk la boo xamante ne. il faut construire en hauteur loolu président waxoon na ko bu njëkk ba euh, maanaam li nga enterré dafay am solo ba nga xamante ne fokk nga yéeg pour mën ko rentabiliser voilà moo tax ngay gis euh, dispositif immeuble yi hmm. euh, ñu dinañ yéeg peut-être ba foofu ba ay ay étages yoo xamante ne na sori waaye tey boo gisee <coughs> lu mel ni Nations Unies hmm. nga xam ne ñoom dañoom ay règles hmm. dañuy am saytu dañuy xool fi ñuy nekk Euh, PSE la question de la sécurité. tey mm-hmm. maison de Nations Unies fu ñu koy tabax. jam ñaajo la ñu nekk di ko tabax maanaam service su Nations Unies yëpp dañu leen nar boole def leen ci benn say ci benn bâtiment euh, teg leen jam ñaajo te yaakaar naa ne yàggatul sax avance liggéey bi mi ngi avancé vraiment ci ci ci vitesse bu bu bu xaw a dëgër. Mm-hmm. donc macha allah yaakaar naa ne fu dëkk bu dëkkuwaay bu am gis-gis la. Mm-hmm. Euh, terre boo xamante ne bu ñu war a bàyyi xel la parce que moom mooy capter flux yi nga xamante ne day dugg te aussi mooy filtre flux yi génn donc dafay permettre régler ñaari problème mooy d'abord Dakar ni mu feese benn ñaareel ba moom mooy aussi ni ñuy ñëwee di wutal si Dakar mooy exode rural bi ni muy agressé mhm. effectivement euh, Dakar moo tax bunt yi leen ubbi def ko triangle dakaar Mbour Thiès pour que ñuy mën a imaginer liggéey bi depuis Mbour depuis Thiès pour li yegg si ci Dakar hmm. boo ci yokkee tey autoroute Ila Touba mi nga xamante ne jam ñaajo lay déparé daanaka muy aussi beneen infrastructure boo xamante ne dafay desservir le centre desservir aussi euh, le côté un peu centre ak nord hmm. parce que nit ñi léegi daanaka fa la ñuy jaar pour mën a jël aussi la route Linguère euh, Matam. Mhm. ci wàllu urbanisme nan la ñu mën a xëy na liggéeyee ba euh, jam ñaajo gën a nekk euh, peut-être dëkk bu yomb dundee est-ce que am na ay solution peut-être yu ngeen am si complexité yi nga xam ne juñu nga ko fi léegi. waaw mais mooy li rek évolution naturelle bi nga xamante ne jamono bii moo am. Mhm. mooy gis nañ ne que lu bëri programme nañ ko foofu. Euh, loo xamante ne ay infrastructure de base la yuy war a mën a accompagner euh, développement wu benn espace mun do mën a nekk espace boo xam ne dinañ fa mën a liggéey espace boo xam ne dinañ fa mën a yeewoo hmm. espace boo xamante ne dinañ fa mën a créer espace boo xamante ne dinañ fa mën a investir pour mu nekk un bon espace de vie mu nekk euh, li ñuy wax zone dortoir zone d'investissement zone de travail Euh, ak hub logistique boo xamante ne boo boolee ba pare mu nekk plateforme multimodale maanaam tey euh, ci zone bi ma lay wax sphère bi ma lay wax xam nga yàlla port de de minéralier de Bargny moo nekk ci beneen aile bi après tu as port de Ndayane donc loolu ce sont ay loolu secteur portuaire bi la après nga am aéroport de Diass muy secteur aéroportuaire nga am ñetti autoroute yuy croisé wu kooku muy secteur autoroutier n'est-ce pas mm-hmm. donc boo ko boolee loolu la ñuy wax multimodalité maanaam euh, ba pare nga am train express régional bu war a ñëw donc forme transport yëpp daje nañ fa mm-hmm. ci benn zone bi aéroport port train ak autoroute ak route loolu daf ñuy indi ci ban ëllëg nga gisal jam ñaajo peut-être fii ak huit ans yi nga ci dolli sànq. ne buñ ci tegaatee yeneen juróom at ak juróom ci ginnaaw. maanaam gis nga gis-gis bi président di déroulé man jàpp ne fukki at ak ñaar ci ginnaaw wala astafurla ñaar fukki at ba ñaar fukki at ak juróom ci ginnaaw la ko waroon développé kon heure bi fekk na jëloon nañu envol ba pare. kon it Dakar ni mu mel tey du ko mel. waaw mais xam nga yaa boo xoolee tey ay dëkk yu mel ne ay Dubaay gis nga vitesse bi ñuy demee. Euh, ak ak ni ñu koy oser maanaam sañ-sañ bi ñu ciy am loolu gis-gis moo koy joxe ak projet ak attractivité te jàpp naa ne ci loolu lañ jëm lañ jëm moom mooy euh, tey lañu war a xalaat yépp mu war a doon suñu ëllëgu réew mm-hmm. euh, ci wàllu lu mucc ayib ci wàllu nu ñu war a tabaxee ci wàllu nu ñu war a dunde mm-hmm. nu ñu war a gisee yaatuwaayu tali yi nu ñu war a gisee yaatuwaayu kër yi nu ñu war a gisee jóg bu mu war a jóg ca kaw nu ñu war a gisee euh, maanaam ni ni ni service yi di interconnecté woo maanaam administration bi privé bi euh, industrie bi lépp ni ñu war a interconnecté woo loolu jam ñaajo mooy wane exemple. d'accord alors kon tey mënees naa jàpp ne moom mooy doon Dakar wala mu raw Dakar ci ci wàllu infrastructure ak euh, peut-être ni réew mi doxee. waaw maanaam maanaam dafa xëy na du doon Dakar. mais dana wone la Dakar waroon doon te mu rëcc ko ci biir évolution euh, parce que tey am na yu bëri yoo xamante ne dañoo seetaan ba mënatuñ koo dindi ci Dakar. muy lan. non par exemple am na yenn lotissement yoo xamante ne ni ko président di waxee rue yi ñu koy defee ni mu xatee euh, parcelles yi ni ñu ko daggee euh, infrastructure de base yi ni ñu ko distribuer mm-hmm. restructuration la ñu gën a def biir Dakar. Euh, te restructuration boobu noonu boo xoolee euh, am na axe yoo xamante ne boo ko bëggee yaatal sa doo ko mën parce que fekk na nit ñi tabax ba mu xat ba noppi donc euh, loolu du la Dakar mérite pour defaraat tey ay grandes artères sur Dakar mm. mais faaw nga wàcce ay kër yan kër ngay wàcce ak dans quelles conditions nga koy defee mm. daanaka bi ñu jëlee VDN la ñu gëj defar ci Dakar tali bu yaatoo noonu mm. mooy deux fois deux voies ou deux fois trois voies ak terre-plein loolu ca Védène lañ ko ko def te Védène boobu bañ koy def bañuy ñuy départ Mermoz terrain Joola booba dara nekku fa. nga ñëw après ñëw ba croisement tali 26 mooy maanaam fi nga xamante ne tey moom mooy euh, croisement bi ñuy wax euh, croisement bi jëm kër Cheikh Béthio Thioune foofu c'était l'ancienne piste. dara nekku fa woon. après nga yéeg ba ci kaw euh, mooy zone bi nga xamante ne foofu lañ daan wooyee Kambu Gabaar. Euh, parce que justement dafa amoon ravinement ravin bu mag moo nekkoon foofu noonu mooy zone euh, Liberté 6 extension euh, foofu daanaka àll la woon beneen côté bi aéroport bee fa nekkoon donc dafa amoon àll ba am ay golo yu nekkoon foofu noonu donc noonu la demee donc bi ñu koy xàll dañ ko xàll di te fekk c'était vide waaye tey jii nii gis nga ne que président mal dafa obligé indi beneen procédé te loolu tamit dañ koy saluer mooy pour am voie yu mag dañoo obligé def ay autopont maanaam même même même même même tali dinañ la yi mujj yéegal te loolu il faut ñu rafetlu ko quand même quatorze ou seize autopont lañ defar biir Dakar bu yoof bi je pense ak yi nga xamante ne ñoom ñoo ñëw ci beneen bi gis nañ ne que euh, mooy mooy li ci gën a déterminant donc mooy li ma lay wax rek maanaam xel mooy liggéey euh, te lim fi def yépp troisième génération la boo gisee ñu defee ko noonu c'est parce que euh, ci suuf mayeetu ko donc ci es nga dem ci kaw. pour mën a euh, permettre euh, décongestionner wala liggéey ci wàllu boobu noonu donc moo tax ma ni la vraiment ñaajo euh, mooy li nga xamante ne Dakar mënoon na ko éviter te éviter wu ko. justement ci wàll woowu lan ngeen prévoir Diamniadio sànq laaj bi ma la laajoon bëggoon naa ci am tontu boobu ci wàllum xëy na nit nit ñuy dëkkee ci wàllum ni ñuy daggee mbir yi ci wàllum ni ñu koy tabaxee lan ngeen nar a def ba xëy na du doon Dakar bis. non lu lu lu important lu président wax. te wax na ko juróom-ñetti at ci ginnaaw ba ñuy inaugurer SICAD dafa ne woon il faut ñu accommoder wu ci vie en hauteur maanaam il faut que sénégale yi tàmm tey nag fi mu toll nii commencé di dund ci ay immeuble ak di dund ci appartement ñëpp mën am fi mu toll nii villa parce que étalement urbain bi ni mu demee nii mënatul nekk suuf su toll noonu amatuñu ko lu dul kon il faut ñu dem installé wu lu gën a sori dem ay Sanjara wala Caajaay wala ginnaaw <laughs> ginnaaw Kaolack wala Ngàcc de mbaa maanaam foog nga dem wuti foo xamante ne waa aaf na tuuti pour effectivement nga mën fa am loolee nga xamante ne loolu nga bëgg waaye bon tey dëkk bi euh, xat na moo tax foncier bi pression boobu tax na suuf si dafa cher daanaka ñi daan tabax Dakar sax tabaxatuñ mm-hmm. wala da ngay gis koo xamante ne day tabax gis benn poche mu tabax ko en hauteur waaye nag auteur aussi dafa am ay règles dafa am copropriété dafa am nu ñuy gérer espace commun yi euh, maanaam tey ji dafa am nu ñuy dundee ak suñu voisin yi euh, na nga daan toogee ci sa waañ te di dëbb déranger woo kenn tey mënatul nekk euh, maanaam daal il faut ñu xool changement yi ñooy bari. waaw ñooy bari c'est-à-dire que tey boo xoolee boo dëkkee ci appartement appareillage bi nga war a am. Mm-hmm. pour liggéey te doo déranger. Mm-hmm. booy def sa waañ il faut nga am hachoir moo gën ngay dëbb. waaw nga branché def sa hachoir booy def sa nokos nga def sa nokos te doo déranger kenn. mais bu dee da nga war a dëbb pour que ki nekk ci suuf di nelaw. Euh, di la dégg boobu yaa ngi tooñ. bon espace commun yi également euh, maanaam ni ñu koy doxalee parce que yéenay cotiser ndoo pour euh, lamp yi pour ascenseur yi pour toppatoo escalier yi. pour nettoyage bi pour bâche à eau yi. pour euh, lépp li nga xamante ne mooy weer ci kaw ak ñoom seen loolu yëpp mooy mooy li nga xamante ne mooy s'accommoder s'accommoder rek moom mooy fexe ba. ñu am dundin bu bees boo xamante ne dana permettre ngay dund ci sa biir privé kenn du la sonal. te yow it doo yàqal keneen. ñu mën a méngoog loolu waaw. Mm-hmm. alors euh, ba tey euh, ci wàllu jam ñaajo fu ñëpp daw wutali coowal suuf dafay yomb est-ce que yéen a ngi sóoraale loolu. bon jàpp naa ne ba léegi alhamdulilah dégg ñu fa coowal suuf lu rëy loo xamante ne nii am na problème parce que dès le départ hmm. président dafa comprendre ne il faut aussi ñu def gouvernance saine ci zone bi moo tax ñu créé woon la délégation Euh, général pour la promotion des pôles urbains de Diamniadio et du Lac Rose hmm. bi nga xamante ne tey euh, ministre Diène Farba Sarr moo ko yore hmm. euh, loolu lay jëriñ mooy administrer zone bi fexe ba surveiller ni nga xamante ne noonu la ñuy joxee suuf si ak noonu lañ koy nangoo parce que foo gis lu ñuy joxe rek euh, nangu aussi dana fa am. Euh, naka lañ koy contrôler est-ce que ñañ ko jox ña ngi koy utiliser nam ware mm. est-ce que ña ngay def la nga xamante ne loolu lañ doon lañ ca war a fay est-ce que ñu koy fay. tout ça moo tax gouvernance boobu xëy na mooy tax euh, dana mën a wàññi problème mu xëccoo suuf si. Mm. ak wàllu aussi conflit yi nga xamante ne. da ciy am parce que au départ li ci mënoon am moom mooy ba ñuy déclarer la zone d'utilité publique maanaam état ñëw teg loxoom ci suuf si. Mm. bi muy teg loxoom ci suuf si am na ñu fa nekkoon. ña fa nekkoon aussi lañ lañ leen war a dàmpe dañ leen ko dàmpe ba noppi. waaw comme ça nag après affaire bi mën a vierge mën a normal ba nga xamante ne loo fay def. doo ci am benn jafe-jafe. Mhm. seen émission démb ak tey ngeen di teewlu ñuy waxtaanee jam Diamniadio mi nga xam ni moo war a may dakaar mu mën a féex tuuti ndax dëkk la bu bees bu président Macky Sall euh, tàmbalee sanc alors ci liggéey yi ak euh, réalisation yi ngeen def et tout est-ce que amoon na ay contraintes wax nga léegi ne ñi fa nekkoon yëkkati nañu leen dàmp leen ndax am na yeneen i jafe-jafe yoo xam ni état bu Sénégal jànkonte na ak moom bi muy taxawal dëkk bu bees bi di jam ñaajo ah bien loolu d'abord euh, nee naa complexité wu suuf si ak caractère bi mu am problème la fallait ko ñu trouver ci ay solutions techniques ensuite ña nga fa fekk également muy maanaam euh, nga war a am plan boo xamante ne dana permettre ñi nga xamante ne euh, seen suuf dañ ko laal euh, ñu war leen mën a dàmp ci nii wala ci ne maanaam dàmpee leen suuf wala ñu dàmpee leen euh, ay koppar loolu lu am solo la ñetteel ba moom mooy wut ay partenaires yoo xamante ne gëm nañu également projet bi ñu accompagner ko gis nañ ne coopération turque lu dox la ci infrastructure yi nga xamante ne euh, tabax nañu ko biir jam ñaajo gis nañ ne que is ñoom dañu impliqué euh, ci depuis CICAD depuis centre de conférence internationale après centre des expositions bi aussi gare des gros porteurs bi euh, impliqué wu ci stade bi impliqué wu ci Dakar Arena impliqué wu ci stade annexe bi impliqué wu ci marché d'intérêt national bi donc sa veut dire que impliqué wu également ci complexe hôtelier bi ñu fa tabax donc daanaka ci infrastructure yëpp ñu ngi woon ci biir te bokk nañ aussi ci ñi terminé euh, aéroport international euh, Blaise bi nga xamante ne amoon na quelque sooxe. Mm. ci ba ñu ko waree jeexal. kon nag foofu tamit dañuy rafetlu euh, suñu ànd ak république bi nga xamante ne mooy république bu Turquie ci coopération boobu nga xamante ne c'est une coopération de développement. Mm. te gis nañ ci suñu bopp ci wàllu. Euh, coopération financière mais aussi ci wàllu euh, développer ay euh, infrastructure en mode fast track donc naturellement day am transfert de technologie boo xamante ne mm. dana gën a yokk ñun suñu ay techniciens yokk suñu ay ingénieurs yokk suñu ingénierie yi yokk aussi suñu façon ci ni nga xamante ne noonu la ñuy tabaxee donc loolu lu am solo la waaye aussi coopération beneen tey am na yeneen mode yoo xamante ne Euh, moom la ñu defaree euh, sphère administrative yi. Hmm. gis nga nekk secteur privé ñoom it ni ñu engagé woo euh, ci ni ñu tabaxee benn sphère bi ak benn sphère bi. Hmm. gis nañu aussi le parc industriel nii nga xamante ne noonu la ci état du Sénégal engagé woo. Hmm. avec le secteur privé. vraiment daal jàpp naa ne conditions yu baax lañu teg. pour que effectivement dans le cadre d'un partenariat entre l'État et le privé pour que ñu mën a développer li nga xamante ne mooy euh, dëkkuwaay yu bees yi. Mhm. alors gannaaw def ngeen fa loolu yëpp ci juróom-ñetti at euh, xel nangu na ni du ngeen fi yem li tubaab naan ne vous arrêterez pas en si bon chemin euh, léegi lan mooy yeneen jéego yi nga xam ni état bi bëgg na ko def pour que Diamniadio doon li nga xam ne président Macky sàll moom la ci jublu. non man jàpp naa ne tey je pense que y a national du pétrole et du gaz. INPG nga xamante ne aussi mu ngi ci beneen côté bi gis nga aussi nekk foofu dafa am tuuti sooxe euh, waaye bu paree dana nekk infrastructure bu bees bu mucc ayib bu yokk ci mbir mi. loo war a sooxe bi. mooy lu mooy université Amadou mbaw Mbow bi nga xamante ne moo nekk ci gannaaw stade bi. Mm. parce que boobu je pense que li ci am moom mooy dañu entreprise bi moo défaillante. waaw donc loolu aussi dafay arrivé. Mm. dans les processus de construction. Mm. waaye yaakaar naa ne bu université bi ñëwee yokk ci loolu. institut national du pétrole et du gaz ci. Mhm. donc xam nga volet éducation bi déjà. dafay doon lu lu am solo lu mhm. taxaw. te am na aussi privé yu bëri yoo xamante ne euh, ñoom tamit mobiliser wu nañu pour ci wàllu éducation bi ñu indi seen wàll. Mhm. am na ñu bëri ñoo xamante ne prévoir nañu tey tabax seen siège euh, jam ñaajo pour dem foofu. Euh, konte nag vraiment gis naa ne que processus bi loolu peut-être la DGP yi ñoo la ci gën a mën a indil. ay détails. mais xam naa ni daal wax fa dëgg yàlla euh, bu ñu dawalee fii ak ñeent ba juróomi at mm. euh, leneen la ñuy gis euh, ci étape bu bees loo xamante ne moo ñëw biir Diamniadio mm. mooy maanaam dëkk ba dana commencé dund d'accord alors Diamniadio li tax ñu taxawal ko wax nañu ko sànq mooy bëgg féexal Dakar bu ci gën a mag euh, mooy capital bi dakaar Dakar mu am ay jafe-jafe tey yu bari euh, sa wàllu euh, xam-xam sa formation war na ñu mën a peut-être laaj la ci dakaar bu jam ñaajo noppee ba ñu tàmbalee wàññi lan la ñu fi war a def ngir mu changé parce que tey nag ku ne xam na ne capital bi moom doy na waar ay mbir yu warul nekk ci capital mi ngi fi yenn jafe-jafe yi ñu ngi koy am ba tey ay mbënd yu ci aju ñu di ko fi dund lan la ñu war a teg nag comme jéego pour peut sauver Dakar su dee mën naa mu amee mën nañu wax d' abord lan la commencé teg comme jéego parce que tey euh, am na loo xamante ne le plan décennal de lutte contre les inondations def na ko ci wàllu banlieue bi ci lépp lu nga xamante ne wàllu restructuration urbaine la maanaam euh, jëmmalaat euh, xar kanamu gox yi nga xamante ne nañ leen sancee baaxul lu mel ne zone yooyu nga xamante ne ay njaago baar ñetti mbaar euh, ak euh, ruq-ruqaat yi nga xamante ne tey jii nii dafa soxla euh, ndox ma fa nekkul ñu indi ko fa électricité ba fa ñëwul na mu war a ñëwee mu ñëw fa infrastructure de base tamit yegg si fa. Hmm. te fekk ne aussi nañu ko tegee du noonu nit ñi nañu fa nañu fa nañu fa ñëw toogee. Hmm. du woon noonu. waaye seetaan moo tax xëy na peut-être mu dem ba dajaloo ba jéggi dayoo. Hmm. kon foofu tamit. bu fa mën na ñëwee musiba yi gis nañ waaye euh, am na lu plan naal def li ko dalee gunaas ba yëmbal def ko jidda caaroy kaw def ko dalifoor euh, ba tey jii nii am naa yaakaar ne am na ci dëkk yu bëri wala dëkkuwaay yu bëri yi nga xamante ne seen xar kanam changé na exemple bi ñu ci gën a jël mooy dalifoor hmm. nga xamante ne ci wàllu euh, projet boobu ñu naan projet le projet de gestion des eaux pluviales et d'adaptation au changement climatique te ADM doon ko gérer euh, am naa yaakaar ne lu bëri euh, lijjanti na ko fa mais am na aussi lu bëri loo xamante ne des na te mu war a euh, continuer donc politique de restructuration bi ak politique de régularisation foncière dafay continuer waaw parce que jamono bi mu commencé di am peuplement bi depuis juste Euh, ay dix ou quinze ans après les indépendances ñu di ko seetaan ko seetaan ba heure bi euh, loolu mënatuñu jël nit ñi génne leen yóbbu leen dañuy rek améliorer conditions yi maanaam nag faaw mu am ñoo xamante ne yenn saa yi dinañ jóg ci cadre plan yoo xamante ne day am de temps en temps de manière ponctuelle comme plan jaxaay bi plan jaxaay ñëwee am na ñu bëri ñoo xamante ne dañ leen génnee ci zone humide yi hmm. euh, dem yóbbu leen feneen hmm. plan taw feex yaakaar aussi bi mu ñëwee ak plan fendi am na loo xamante ne moom la def ci ay logement yu bees restructuration ay canaux yu bees euh, ay euh, bassin de rétention euh, ay ay ay ay ay ay écoulement dans le sens gravitaire maanaam ndox moo xamante ne dañ koy utal ay ay walukaay ay yoon ba mu mën a sotteeku ci géej géej yooyu yëpp ay ay ay liggéey la yoo xamante ne dana permettre fi nga xamante ne xëy na peut-être fendiwul mu mënoon fendi parce que yoon yooyu ay yoonu ndox la. kon yàgg yàgg yàgg. ndox du bàyyi yoonam donc dafay ñëwaat. yooyu yëpp nag ci ci wàll boobu. Euh, état bi def ci liggéey ak gis-gis ak xalaat. waaye du liggéey yu gaaw. du liggéey yoo xamante ne tey nga koy def rek mu am résultat tey. Euh, faaw nga suivre ko xool ko ay fukki at. Mm. yenn saa yi renouveler ko ci fukki at ak ñaar waaw joyanti yenn yi pour que mu mën a euh, joxe résultat yi nga xamante ne moom la bëgg. bon ñetteel ba moom mooy aussi di anticiper gis nga président li mu wax keroog ci wàllu volet paysager wala ni ñu war a doxalee lotissement yu bees yi mm-hmm. nga xamante ne am na lu mu wax ne que ci wàllu yoon yi euh, écart yooyu la ñuy mën a am mm-hmm. ndax euh, jàmm mën a am euh, am na lu mu wax ci wàllu saxal garab yoo xamante ne dañ koy léegi taqale ak permis de construire bi nga xamante ne moom nga war a am mm-hmm. yooyu yëpp ay éléments te gis nañu aussi ci cadre de vie Euh, tey euh, ay sociétés yu mel ni UCG. gis nañu euh, son coordonnateur Mass Thiam. Mm-hmm. ni ko président waxee ne que dafa changé xel mi nga xamante ne nit ñi moom la ñu am ci wàllu gestion des déchets. Mm-hmm. mais loolu yëpp c' est compte c' est c' est à c' au crédit de amélioration suñu cadre de vie. Mm-hmm. ak li nga xamante ne mën nañu wax ne que buñ ci góor góorlu est possible. tey les points de regroupement normalisés yi ñu am pour wàllu gestion mbalit mi mosu fee am. Euh, ñuy cohabiter ak mbalit mi te fekk ne euh, du xeeñ te danañ ko mën di jël tous les jours te dañ koy romb sax mu mel ne infrastructure boo xamante ne dafa dugg ci environnement bi te fekk ay mbalit la euh, loolu yëpp tamit jàpp naa ne bu ñu ko continuer war nañoo mën a évoluer tey indi de nouvelle règles urbaines yoo xamante ne danañu permettre ñu am dëkk bu set dëkk bu baax dëkkuwaay bu sell dëkkuwaay boo xamante ne ku nekk da nga mën a respecter sa morom waaye ku nekk aussi di nga fier ci li nga xamante ne moom la dakaar doon. Mhm. alors mooy doon laaj bu mujj bi certainement euh, dañuy dégg euh, urbanisme aménagement euh, ñu bëri ci askan wi du ñu xam solos loolee ci wàllu dëkkuwaay. Mhm. ndax tey bu ñuy wax mbirum Dakar ni mu mel dañuy indi urbanisme aménagement lan nga ci mun a xamal nit ñi ba ñu xam ñaari mbir yooyee lan mooy seen solo ci dëkkuwaay ak ni ñu war a jiitoo ci yeeg yu ni mel. waaw daanaka ñoo xaw ànd. c'est que urbanisme rek dafa nekk loo xamante ne moom ci wàllu dëkkuwaay yu kawe yi la bokk maanaam les villes loolu lay régir te dëkk ci biir ville nag dafa am ay règles règle bi moom mooy tey xam nga fooy dëkk foo xamante ne ay oto dafa am ay bus am fa ay train am fa ay vélo am fa ay moto am fa mm-hmm. je dirais même ay saret am fa euh, ñu war a am ay feux tricolores nit ñi war a dox. ñi dugg transport en commun mais loolu foog nga organiser ko. parce que tey boo amul trottoir yu nit ñi dox ñi tali talib la ñuy dox. te bu ñu doxee ci tali bi la pour automobiliste yi danger la pour ñoom. donc loolu problème la tey boo amee ay zone yoo xamante ne dafa am ay banque wala ay entreprise yu war a nit dem nit ñi comme ay oto lañu fay ñëwee faaw ay parking am fa. parking yi naka lañ koy organiser loolu yëpp urbanisme la. tey boo gisee ne dañu war a tabax. tabax dafa am ay règle chantier dafa am ay règle parce que mun loo ñëw digg chantier digg ndakaaru njaay nga ñëw teg say brique daal di daal defar say brique teg ko ci daal di baare tali bi mhm. jël sa suuf ñëw ñëw sa benn sareet ñëw sotti la suuf nit ñi mënatuñu jàll euh, nga foofu noonu nit ñi di romb aussi moom ay danger. mais loolu dañ koy gis yenn saa yi am ba léegi xanaa mais loolu yëpp loolu yëpp urbanisme a koy gérer parce que danga mooy gérer normalement ci permis de construire bi mm. war nañ am panneau de chantier chantier bu nekk war nañ identifier numéro de d' de construire am euh, war nañu euh, war na ñu identifier entreprise ba fay liggéey mhm. war nañu identifier architecte bi yor projet bi war nañu identifier bureau de contrôle bi nga xamante ne moo fay def contrôle mhm. ingénieur conseil bi fa nekk loolu yëpp ci panneau de chantier bi war na feeñ ay information publique la yoo xamante ne dafa war a génn ci chantier bi mhm. chantier am na noo xam noonu lañ ko war a ñagee ba nga xamante ne aussi les questions de sécurité lañ koy gérer boo duggee ci biir chantier bi am na lu ñu war a def port port de port de casque yi la war a demee waaw yooyu yëpp dafa dafa am solo yooyu yëpp nag ci urbanisme lañ koy gérer mais volet construction bi la hmm. donc code de l'urbanisme ak code de la construction ñoom ñooy ñi nga xamante ne ñooy régir euh, règles yooyu noonu hmm. waaye le mobilier urbain également hmm. parce que tey am na loo xamante ne tey boo gisee euh, poubelles yi ci mobilier urbain bi la bokk banc public yi ci mobilier urbain bi la bokk Euh, toilette publique yi ci mobilier urbain bi la bokk. mobilier la boo xamante ne ñun ñëpp a ko bokk. te daf ñuy servir. bu amee ay ay chaînette. wala ay ay ay ay bac fleurs yooyu yëpp ci mobilier urbain bi la bokk. dañu ko war a sàmm di ko aar di ko toppatoo loolu yëpp ci urbanisme bi la bokk. Euh, naka la ñuy euh, lijjantee les voies d'accès yi nga xamante ne livraison dafay am. foofu fekkee dafa xat marché yi. loolu lépp ci organisation wu dëkk bi la bokk. Euh, boo xoolee bu baax a baax tey le la planification urbaine. maanaam ñu xool tey yenn zone la ñu mën a dëkk. ak zone yi nga xamante ne mënuñu faa dëkk. ak yi nga xam ne ay espace boisé classé la maanaam ay espace vert la yoo xamante ne kenn mënu faa tabax. nan naka la ñuy gérer la bande des cent mètres la zone littorale loolu yëpp ci dëkk bi la bokk bu fekkee ne ci zone zone urbaine bi la féete. donc loolu yëpp urbanisme la bon maintenant les bâtiments euh, les monuments historiques lan mooy seen statut tout am na yenn yoo xamante ne dafay bokk ci culture waaye ci urbanisme la bokk ba tey loolu yëpp daal am na solo euh, alors boo boo boo boo noppee ci loolu nga dugg naa ci wàllu euh, aménagement par exemple au plan beaucoup plus global mm. tey mën nga ne li ñuy def corniche bi aménagement la mm. parce que am na vole paysager am na pavage dina joxe paysage bu bees dina joxe espace yu bees yoo xamante ne euh, waa Dakar war nañ fi mën a féexlu war nañ fi mën a doxantu est-ce que dafay am ay café est-ce que dafay am ay commerce est-ce que voilà est-ce que dafa am dynamique euh, ay centres commerciaux naka ko war a organiser loolu yëpp am na solo mais aménagement bi aussi au plan national nga xamante ne dafay relever ci li nga xamante ne moom mooy plan national d'aménagement et de développement territorial muy dëkk yi naka lañ leen di organiser. ba nga xamante ne lu nekk infrastructure ba fa war. moo fa war a am parce que boo gisee exode rural metti woon. c' est que on avait dañu échoué woon ci wàllu plan d' mooy dëkk bu nekk. naka la ñuy def ba fixer fa nit ñi lañ soxla yëpp ñu am ko fa. xam nga tey boo gisee l'hôpital Thierno Birahim Ndaw de niveau 3 de Kaffrine mais tax na waa Koungheul. lañu ñu mën a lijjanti Kaffrine dootu ñu jàll si Dakar di ko def. waa Kaolack balaa ñuy dem Dakar. bu ñu dëppee dem Kaffrine moo leen di gën a jege. Touba wala Mbar wala waa Gossas. certainement foofu la ñuy dem aussi. Euh, donc dafay polariser lu bëri. hôpital bi nga xamante ne moo nekk Sédhiou dana polariser aussi foofu noonu pour yenn ba ñi nga xamante ne dañuy jóge ba Koukandé wala ba Kolda mais en tout cas la haute et la basse Casamance yëpp am na loo xamante ne war nañ ko mun defee foofu. tey boo gisee hôpitalu Touba bi nga xamante ne moo nekk entrée Darou Moussi. Mm-hmm. ñëpp ñi nga xamante ne Sarsara lañ jógee Darou Moussi. et tout ça Touba yenn saa yi ba Njaareem euh, ba ñi nga xamante ne dañuy jóge beneen zone bi. peut-être même ay Linguère mën nañu ñëw foofu euh, foofu polariser leen. waaw donc loolu tamit loolu ay wàllu point d'aménagement la. tey pourquoi euh, président def université El Hadj Ibrahima Niass bu bu bu Sine Saloum. c'est parce que effectivement foofu tamit dana mën a téye flux yu bëri ñu nga xamante ne Bambey lañ jóge ñii Fatick. et puis dana permettre aussi euh, campus bi. mën a tas yi dem Kaolack yi dem Fatick yi dem fii yi dem fële. loolu moo tax ñun tamit au niveau de du Sénégal oriental ñuy xeex pour suñu université. Euh, bi nga xamante ne euh, président jote woon na ci waxoon na ko mu mën ñu ci jàppale pour mu nekk une réalité. muy université du Sénégal oriental à Tambacounda pour mën a polariser tamit Bakel Goudiri. Kédougou Missirah. Euh, Dialokoto zone yooyu yëpp nga xamante ne ñoom it mën nañu am seen université boo xamante ne université pôle la kon aménagement bi day nekk dañuy dellu si ci ay pôle yoo xamante ne hmm. li koy li koy li koy sooke mooy foo nekk day am benn métropole d'équilibre hmm. par exemple Tamba dafay nekk métropole d'équilibre boo xamante ne hmm. dafay rayonner sur tout le Sénégal oriental Kédougou voilà donc boo demee feneen aussi euh, xëy na peut-être Kaolack noonu lay nekkee une grande métropole d'équilibre boo xamante ne dafay rayonner Euh, sur quasiment tout le Sine Saloum. Euh, Mbour nekk métropole d'équilibre boo xamante ne sur toute la petite côte aussi dafay rayonner donc noonu xëy na peut-être moom mooy xalaatu aménagement yi nga xamante ne PNADT indi na ko. te mu doon lu am solo ak lu am avancement. ci suñu biir réew. si loolu la ñuy jeexalee waxtaan bi amoon mbégte dalal la ci yokk ci présentation bi ne yow yaay président conseil départemental bu Tambacounda ñu fal la ci élection locale yi ñu weesu di la ci félicité ñaanal yàlla woyofal yéen bi Mamadou Kassé lañ doon dalal ci démb ak tey ñu ngi lay gërëm. jërëjëf Fatou nga baal ma sama dernier moom ma may ko waa Tamba. Hmm. ñi nga xamante ne aussi ñoo ma def confiance falma ci kaw euh, euh, institution bu mag boobu nga xamante ne mooy la première des institutions locales. Hmm. muy le conseil départemental. Hmm. Euh, doole boobu sax nag la am ak dayo boobu. te dayo boobu aussi moom lañ ko bëgg a delloo. may vraiment remercier juróom-ñeenti communes yëpp muy Tambacounda di Sinthiou Malem di Ndoga Babacar di ñaani tukulër di makk Kulibantang di Missira euh, di Netebulu euh, Tambacounda ak euh, Dialokoto nga xamante ne vraiment ñoom ñëpp ñoo participer à Koussanar ñoom ñëpp ñoo participer ci sama élection en tant que président du conseil départemental may wax ne tey fixé nañu suñu ñetti priorité yoo xamante ne dañu cee bëgg a nekk baat kàddu ak tànku département bi muy d'abord euh, danañu fexe lu nu mën pour président Macky Sall bi nga xamante ne yéeneem noonu la rëy ci Tambacounda mu jëmmal euh, Université du Sénégal oriental ak Tambacounda loolu mooy benn ñaareel ba moom mooy euh, lépp loo xamante ne suñu kàddu la suñu baat suñu làmmiñ dana jóg Euh, ci aussi euh, ñu baral li nga xamante ne mooy xalaatu président de la république ci wàllu euh, développer wàllu raay bi ci Tambacounda te suñu benn rakk suñu doomu Tamba yor ko muy Kibili Touré hmm. ñetteel ba moom mooy wàllu ëpp logistique parce que dañ ne aussi loolu aussi wàllu aménagement la hmm. tey jii nii dañu soxla ay port sec te Tamba dafa nekk zone boo xamante ne war na nekk zone hub logistique boo xamante ne war nañ fi mën a def euh, ay euh, traitement de conteneur euh, traitement commercial wala traitement logistique boo xamante ne base bu importante la war doon loolu aussi nekk na loo xamante ne suñu xeex lay doon mais après bu loolu weesoo nag am na yu bëri yoo xamante ne yooyu moom danañ ci góor góor lu nu mën parce que wàllu lycée yi ak wàllu collège yi. dafay bokk ci euh, compétence su conseil départemental danañu fexe ba mu gën a yaatu ci biir département bi. wala li nga xamante ne nekk na fi ñu fexe aussi ba mu gën a taaru wala mu gën a jekk. Euh, wala mu gën a jëmmu. Euh, pour li nga xamante ne mooy suñu département. yal na yàlla def ci ndam mu doon njëriñal Sénégal yëpp njëriñal waa Tamba particulièrement ñu leen di gërëm certainement ñu ngi ñu doon déglu ci réew mi point com euh, émission bi mun ngeen ko teewluwaat ci réew mi officiel suñu chaîne ci YouTube Mamadou Kassé la doon dalal ma fàttali urbaniste aménagiste directeur général SICAP SA nekk itam président conseil départemental bu Tambacounda seen émission démb ak tey la woon ci réew mi FM Fatou ñu gërëm Jaawo Jàllo mi ne woon ci jàppandal bi beneen euh, <laughs> waaw <laughs> beneen incha allah démb ak tay dimanche lay doon jaa ngeen jëf ñu yendoog jàmm